pour ñu dem ci démocratie apaisée bi ngay bi ngay wax nii est-ce que ça ne passe pas par une élection libre euh, transparente et, et inclusive parce que euh, pourquoi cette question on a vu ce qui s'est passé fële ca DGE avec euh, le cas Ousmane Sonko euh, qui soutient mordicus que dañ ko bëgg écarter ci élection présidentielle est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que c'est ce qui se passe est-ce que yaakaar nga ni que dinañ assister à une élection inclusive ñëpp ñi bëgg bokk bëgg bokk mën a bokk xam nga nous avons décidé de vivre en république république suñ ko waxee état de droit moo tax état de droit suñ ko waxee mooy l'état lui-même doit se soumettre au droit l'état lui-même doit appliquer le droit l'état lui-même doit transposer le droit donc loolu mooy ñetti yi nga xamante ni état mënu ko ñàkk bu fekkee ne état de droit la ñuy wax et dans le cas d'espèce ñun dañu jàpp ne une élection libre démocratique régulière et transparente loolu moom mooy aspiration république ak état de droit droit yëpp aspiration la boo xamante ni chaque fois dañ nañ la ñuy def ba mu gën a am na lu ñu dundoon dans les années 70 dans les années 80 dans les années 2000 ba 2012 yooyu bu fekkee ne dañuy gis ay vieux démons yuy renaîtraat gars yi mën nañoo wax ne attention et dans le cas d'espèce ñun dañu jàpp ne effectivement comme ni ko borom xel yu sell yëpp waxee la DGE dafa transgressé li nga xamante ni moom mooy ay pouvoir am donc jox. dafa taxaw ci posture ku violer la loi en quelque sorte. jàpp naa ne dafa def lu dafa jéggi dayoo. par rapport ak li nga xamante ni moom lañ ko doon sant. et li nga wax noonu effectivement sentiment bi nit ñi di am mooy une volonté manifeste d'écarter un adversaire politique te ñun acteur politique yi nga xamante ni ñun ñoo sànq ñun ñoo seq langue politique bi li ñu bëgg mooy ñu bàyyi ñi nga xamante ni remplir nañ les conditions de part d'une participation ñu mën a participer aux élections présidentielles à mais lan moo war a nekk rôle euh, opposition bi dans ce sens parce que euh, on a vu euh, waa Gëm sa bopp ñu ngi doon euh, soulever benn point par rapport justement à ces clés USB qu'on a eu à distribuer aux candidats ñu dégg ne que peut-être foofu opposition bi waroon nañ def bloc peut-être pour récuser lii di lii di DGE lan nga sentir ni que moo waroon nekk rôle opposition bi tey. mais l'opposition est dans son rôle. Néné moi je pense que l'opposition joue son rôle peut-être que nit ñi mën nañoo wuute ay formes de lutte. mais l'opposition joue son rôle. mais faire bloc par rapport à certaines questions. oui oui nit ñi mën nañ joo bokk aussi niñ koy waxee ak niñ koy defee am ci ñoo xamante ni nañu choisir nekk en front office d'autres en back office dans un combat pour que ñu permettre ñu am a beaucoup de victoires yoo xamante ni opposition sénégalaise am na ko beaucoup de victoires bokk na ci le fait que le président de la république renonçait à une troisième candidature donc y' a beaucoup de victoires yoo xamante opposition sénégalaise daf ci am taxawaay boo xamante ni bu mucc ayib la daal ne lii kat dund nañ ko 2012 mënatuñ ci dem heureusement que euh, le président Macky Sall suivre na la direction du vent ci moment boobu nga xamante ni jàpp nañ ne loolu moo doon la la décision la plus sage mais encore une fois je pense que ne opposition sénégalaise lépp lu mu war a def dina ko def parce que li tax opposition sénégalaise liggéeyam di yomb ci contexte bi mooy peuple sénégalais ci boppam à partir du 31 juillet dafa am tendance boo xamante ni moom lañu ñu wane ba pare tendance bi mooy lan mooy li fi am depuis 2012 ba 2022 24 sénégalais yi nee nañ nag loolu doy na léegi ñoom fégal nañ leneen lu bees la ñu bëgg et que loolu moo tax ñu fas yéene dëgëral suñu taxawaay pour sénégalais yi dénk ñu à partir du 25 février 2024. d'accord alors euh, ci ci ci ci seen ay euh, su ngeen di décrire seen bopp un peu les serviteurs euh, benn pàcc da ngeen wax ne que peut-être da ngeen bëgg redonner justement aux jeunes ñi nekk en quête d'un avenir meilleur redonner leen espoir su ñuy wax loolu ça nous touche un peu parce que gis nañ li xew actuellement jeunes yi di dem mais massivement. Euh, ci ci ci géej gi am ñu ci ñàkk seen seen bakkan donc di jaalewaale la famille de euh, Papito Kara mhm. euh, mu ñu gis ko tey mu ñàkk bakkenam ci loolu mhm. alors à quoi on peut s'attendre aujourd'hui su ngeen nekkee au pouvoir di fi nga jeexale noonu foofu lay tàmbalee di yëkkati ay kaddu njaal di jaale jëmm jooju nga xamante ni moom mooy Papito Kara muy sunu frère di sunu mbokku taalibe bi di ñaan sunu borom mu yërëm ko xare ko aljana ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk dans cette situation El Periódico dafa génne benn magazine espagnol dafa génne euh, benn chiffre bu doy waar mu ne sur les quatorze mille yi nga xamante ni ñoom ñoo faatu foofu quatre vingt pour cent yi ay sénégalais lañ Guinée doog a ñëw Burkina doog a ñëw donc loolu nekk record bu triste boo xamante ni Sénégal battre na ko ci contexte boo xamante ni dañu wax ne dëkk boobu pétrole dafa feeñ. gaz feeñ. c'est paradoxal. pétrole feeñ na fa gaz feeñ fa ba pare nit ñi di daw di fay ay millions pour génn wala dee su ma mënta génn naa dee loolu nag nekk loo xamante ni dafay interpeller ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñoo gérer sa pays depuis soixante trois ans loolu mooy le devoir d'inventaire ñun dañu am benn devoir d'inventaire boo xamante ni dañ koy laaj dañ koy exiger mooy est-ce que duñu taxaw nag seetlu. fi nga xamante ni foofu la ñu jógee ak comme nan la ñu def ba agsi ci situation bu triste bo bii nii loolu bokk na ci li nga wax léegi li tax ñun ñu dugg ci politique nee na ñun at biñ judd ci la ñu njëkk a am les premiers maîtrisards chômeurs au Sénégal dans les années quatre vingt huit ñu am année blanche quatre ñu am une année invalidée quatre gis nga li xew Sénégal. sens dessus sens dessous jusqu'à l'assassinat d'un juge constitutionnel 94 ñu am la dévaluation le pouvoir d'achat bi capacité jënd jënd pouvoir d'achat euh, sénégalais bi ñu diviser ko par deux nekk ci loolu nekk ci loolu ba tey jii daanaka dara soppeeku li woon wonniwul kon ñun li ñu jàpp mooy devoir d'inventaire boobu tey daf ñu yóbbu ci ñu sutier nag problème yi fan la nekk ak na lañuy def ba saafara ko bu fekkee ne ci émigration clandestine bi la nga xamante ni tey sunu géej yëpp ay sëg la sunu désert bi yëpp ay sëg la dem naa fi benn euh, forum fii ci Mauritanie Nouakchott ñuy waxtaane keroog waxtaan bu triste ci émigration clandestine les causes et les solutions ay xale rek ñoo fa daje woon une rencontre organisée initiée par l'Union africaine mais li triste ci ñoo xam dañuy def témoignage mu ne am na koo xamante ni dafa ànd ak moroomam ci désert bi nee na ñuy dox ci désert bi nee na dem nañ ba seen approvisionnement xarit bi mu àndaloon moo koy netti nettali nee na dem nañ ba seen approvisionnement jeex nee na xarit bi ne ko deseetuma ndox ndox bi yëpp jeex na mu ne ko kon sawal ma naan ko mu saw mu naan ko nee na ñu doxaat tuuti mu ne ko dafa mar ba tey nee na noonu la mujj dee ci désert bi keneen ki continuer ba niñ ko refoulé mu dellu si mooñ moo ñëw taxaw foofu di ko di témoigner ñuy def le décompte macabre ci sunuy morom man mii di wax ak yow mënoon naa bokk tey jii ci candidat à l'immigration clandestine yooyu yow mii mënoon nga ci bokk. mais mais comment stopper amoon nañ am nañ xarit yoo xamante ni tey dem nañ ci dee nañ ci am nañu ay morom yoo xamante ni ñoo ngi ci moo tax ma ne dañuy identifier les causes ba pare causes yi mooy li ko waral tey mal gouvernance la li ko waral corruption la. li ko waral enrichissement illicite la li ko waral mooy nga nekk koo xamante ni dañ lay fal ngay ngay xalaat élection bañ a xalaat les générations à venir nous sommes une génération presque sacrifiée lii moom mooy dëgg te dinaa ci ñëw li tax ma ne mal gouvernance la ak corruption yaa ngi fàttaliku les fameuses licences de pêche yi nga xamante ni wax nañ ko ci Sénégal dama la ciy jox benn exemple rek nee na Aïcha Ba nga xam ni sunu euh, ñu ñuy jiital mën a mën a bañ a bàyyee xel kii nga xam day ñëw ëllëg stade Léopold Sédar Senghor bii ngay gis ñu tudde ko stade de l'amitié ça nous a coûté dix ans de licence de pêche maanaam ki toogoon bureau dafa am ñoo xam dañoo toog seen bureau signé pour am stade bu ay xale di fooye di di di football ñu accepté ñu perdre ci dix ans de licence de pêche yoo xamante ni suñu géej suñuy wax dafa nekk ci wax yi gën yàlla suñu borom gënoon na def jën yu gën a bëri les côtes les plus poissonneuses ñu jaay ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy chinois yi ne leen fu leen neex jaar leen pendant dix ans tey jii ñoom ñoo renouveler seen contrat yooyu nga xam c'est des contrats léonins qui ne profitent pas aux aux Sénégalais et qui qui qui tuent la pêche artisanale bi nga xamante ni moo doon permettre nit ñi au dund dem fi bu yàggul ci dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay dëkku nappkat parce que li tax ma taxaw ci napp mais foofu foofu tamit également li tax ma taxaw ci napp tamit également euh, on a entendu dégg ministre de la pêche mm-hmm. dire que carrément euh, c'est tout à fait faux ce qu'on est en train de dire mm-hmm. il a soutenu et même on a vu peut-être euh, yenn ci ci ci licence de pêche mm-hmm. que c'est des licence de pêche yoo xamante ne euh, concerné wul peut-être yenn espèce yoo xamante ne euh, le sénégalais lambda moom lay dem di pêcher léegi man publiquement nga baal ma ma démentir le ministre publiquement nga baal ma ma démentir le ministre lool dafa wuuteeg la réalité des faits te demal nga waxtaan. xam nga ces licences ne le thon le merlu. xam nga ñun bés bu ñu nekkee président de la république. sunu sunu ministre de la pêche sunu directeur des pêches di nga koy gis jamono bu ci nekk muy nekk ak pêcheurs yi xaw ma mu nekk.